الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين kon sunu borom subhanahu wa taala ci laay jóg ñu taxawoon tànk sunu borom mu ni fa ida nufixa fi suur saa suñu walee ci bëft bi nga xam ne tukki teg àllaaxira taxaw na sunu borom ni fala ansaaba baynahum yawma idin ci seeni diggante ñoom nit ñi askanoo dootu fa dox wala yatasaaluun deesut laajante tamit fa man saqulat képp koo xam ne diis na fees na mawazinuhu palaatu yiwam fa ulaayika ñooñu day humul muflixuuna ñooy ñi texe kon ci loolu kenn ku nekk ci ñun mu daal di yëgaat ni kemtalaay ak li mu am ci ay jëf yu baax kemtalaay ak palaatu yiwam ni mu diisee kayfa tasqulu almawazin naka la balance yi di mën a diisee innama tasqulu bilxasanat wa bilsajadat wa bilrakaat wa bilsalawat lépp loo xam ne mooy xeeti jaamu yàlla ci woor ci julli ci naafila ci julli guddi ci jàngal quraan ci zikr yooye bul ci xeeb dara ay mbir la yoo xam ne wallahi day diisal yiw day diisal palaatu yiw waaye mbokk yi xam ngeen seytaan buntu yi nga xam ne mooy jariñ nit daf cay muur ba tëmbati ko gis xoolal yonent yàlla bi saa sallam mu wax ni ñaari baata ngi nii yoo xam ne dafa oyof lool ci làmmiñ dafa oyof ba nit ki bu koy wax du lakk benn énergie dafa oyof ba nit ki bu koy wax du ñaq dafa oyof ba nit ki bu koy wax du sonn waaye taqilataani fil mizan dafay diis lool ci palaati tiyaaba ya xabibataani ila rahman boo bëggee kontaan loo yàlla rek jaaral foofu waaye xoolal subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim nit ki xam lu muy tekki xam lu muy wund ànd ak teewlu xol te di ko zikr allahu akbar yént yàlla mu ne boo ko tegee ci palaati tiyaaba dafay diis lool est ce que am nga ci lu bari ndax yaa ngi góor-góor def ay istigfaar pour la war a nekk te palaatu safaan ba jóg fa est ce que yaa ngi def aw yiw ngir palaatu yiw bi mën a dolleeku fa man saqulat mawazinu képp koo xam ne palaatu tiyaabaam diis na sunu borom ni fa amma man saqulat mawazinu képp koo xam ne palaatu tiyaabaam dafa fees fa huwa fi ishatin radiya kooku de bu dajeg yàlla dan dund gu dal dund gu neex dund gu bakkane dund gu feex sunu borom ni fa ulaik ñi nga xam ne seeni palaati tiyaaba dafa fees ak yiw ëpp na daan na seen palaat tiyaaba ci ay yiw sunu borom ni fa ulaayika ñooñu day humul muflixuun ñooy ñi texe ñooy ñi mucc ci sawara waaye ñi nga wax ñi nga xam ñoo yeeyoo aljana yàlla na yàlla defal na ko sunu borom ni wa man xaffat képp koo xam ne dafa diis wala mu oyof lan mooy oyof palaat ba ñuy def tiyaaba bii diis kono man xaffat képp koo xam ne dafa diis gan mawasinuhu palaatu tiyaabaam bi nga xam ni wala palaat bi muy def ay safaanam su fekkee dafa diis wala ba man xaffat mawasinu képp koo xam ne palaat ba ñu koy defal tiyaaba dafa oyof la shakka ni kon ba ñuy def bàkkaar a diis fa man saqulat mawasinu mooy palaat bi ñuy def tiyaaba moo fees palaat bi ñuy def bàkkaar moo tuuti amma man xaffat mawasinu mooy palaat bi ñuy def tiyaaba dafa oyof xaffat dafa oyof moo taxit kon bële day diis wala boog xaffat mawasinu palaat bi ñuy def ay bàkkaaram dafa diis fa ulaayika ñooñu day sunu borom mu ni xasiru perte nañ anfusahum seen bopp mbokk yi ndax def ngeen ak seetlu ci laaya ji ak borom bi subhanahu wa taala ni mu ko tëddi të tëggee mënoon nañ fa ulaayika alladina xasiru ñooñu ñooy ñi perte la shakka ni perte nañ waaye perte gi gën a mag ci perte mooy perte ba ñàkk sa bopp ñàkk ba ñàkk sa bopp alal ji boo ko pertee jëmu jee koy liggéeyaat daamar ji boo ko pertee jëmu jee koy liggéeyaat kër gi boo ko pertee jëmu jee koy liggéeyaat loo ñàkk rek jëmu jee koy liggéeyaat waaye fa kay fa boo ñàkkee jëmu ji liggéey ndax di nga am lu mën a liggéeyati déedéet fa ulaayika alladina xasiru anfusahum ñun ñu dañoo ñàkk ba ñàkkaale seen bopp ki ñàkk ba ñàkk boppam bu ñàkkul woon boppam jëmmam jooju mën naa yërëmtalu waaye jëmm ji dutul mënam yërëtu yërëmtalooti ndax jëmm ji ci lim ñàkk la bokk moo tax boo dee xool alxuraan dafa ànd ak diq ci ibaad yi muy génnee xasiru anfusakum perte nañ ba perte seen bopp ku perte ba perte sa bopp jëmm ji doon wut ay tiyaaba pour nga mën a texe dootul amati jëmm ji doon jéggalu pour bàkkaar yi mën a dem dootul mën a nekkati waaye jëmm ji nga xamante nii moom moo waroon def ay effort pour yërëmtalu ñu yërëm ko dootul mën a yërëmtalootu lu tax ndax pertaanga yi jëmm ji da caa bokk moo tax sunu borom fa ulaayika alladina ñooñu ñooy ñi nga xam ni xasiru dañoo perte anfusahum ba pertaale seen bopp moo taxit fii jahannama xaalidun wala xaalidun dañuy sax dàkk fii jahannama ca kër ak safaan nga yàlla yàlla musal ci ki nga xam dafa sàggan ba am ay mbir yu dox digganteem ak wutum tiyaaba ba mu dajeeg borom mu fekk lu ñëw la am li dox sa digganteeg wutum tiyaaba lan la mbokk yi bu ngeen seetloo kenn ku nekk na natt ci boppam nga xool wallahi doomu aadama lu mu yóotu bu ca jotee lu dul yiw lu dul mbaax lu dul aljana rek mu sàkk lan moo gënoon a rëy ci projet yi nga am mooy am nangam ak nangam keroog bi nga ko amee doxal ñaari weer loo yëg ci sa bakkan da nga yëg mu tàmbalee yaa sàppi nga yóotu leneen kon du booboo la taxoon a jóg. njàng mu kawe mi ngay yóotu ba yegg si fii balaa nga fee yegg si diplôme yi la fi indi moo nekkoon projet yi gën a rëy ci pour nga am ko keroog ba nga ko amee doxal ñaari at loo yëg da nga yëg mu commencé sàppi di sàlli kon loolu taxala woon a jóg fi mu ne fii nga toll tembe am na loo yóotu incha allah boo ci jotee tuuti ngay dox gis mu tàmbali laa sàpp kon loolu taxulaa jóg wallahi jaamu yàlla rek moom nga yóotu ba jot ko di yëg plaisir bi ngay yëg ba keroog ngay dajeeg yàlla subhanahu wa taala aljana moom mooy algaayatul quswa mu ne ci njombaxtal ga moom la nit di wuti mooy loo xam ne doomu aadama bu ñu ko xësee jox dootu amati leneen lu ko gën a rëy lu muy yóotu dootu ko xamati doomu aadama saa bu duggee aljanna ba borom bi berndeel ku ci xéewal yem fa def dootu amati xelam lu muy daj moo tax sunu borom rond-point bi xalaat yem sunu borom mu ni mooy aljanna maa laa aynun ra'at fiha wala udunun sami'at fiha nopp lu mu yàgg yàgg dégg lu mu masa masa mën a dégg déggukaay moom foofu la yam mënoo dégg lu sut xéewali ci aljanna doomu aadama mënut a xalaat ba xalaatam wees xéewali nekk aljanna bëtam mënul gis ba gis lu gën a xéewale aljanna kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni ñooñu dañoo perte waaye pertaange googu fii jahannama xaalidoon dañuy sax dàkk ci biir sawar jahannam mbokk yi doomu aadama su teewloo yaramam mu xool jëmmam waxuma la lakk waxuma la xal loolu dafa sori waaye xoolal rek bu fekkee dañu toll ci diggante digg naaj bu tànk da ngay da ngay yërëmtalu da ngay yërëm sa bopp ci jël sa tànk teg ko ci suuf si ñaata kilomètre moo dox ci diggante suuf si ak jant bay lakk suuf si jant bi lakku la yow suuf si la lakk pour suuf si man laa lakk loolu sa yaram mënu koo dégg su fekkente ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay wax sawar laa shakka ni jërul nga cee natt sa bopp natt ko ci yi gën a oyof loolu mënu ko dégg est-ce que da ngaa am ak garanti ci yow da nga dugg aljanna déedéet bi sunu borom subhanahu wa taala di wax ne ndax ñoom dañoo am garantie goo xam ne dafa bàyyi ko ci suñ borom di leen wan ne ñoom danañ tàbbi aljana loolu amut kon li jaadu mooy doomu aadama laay ji mu def bu ci nekk ak taxaw seetlu waxuñu ak ma sàmba waxuñu ak ma demba man la ñuy waxal kenn ku nekk mu yëg loolu asalafu saalih lii moo taxoon ñu am taassur bi qiraati alquran wallahi da ngay gis koo xam danaan ma aadatu nafsi fi kitabillah illa udtu nafsi ah min arrasiqina fi nifaq allahu akbar imam ju mag ci ragal yàlla ak mbaax mu ni moom saa bu gaaralee boppam ci alquran buy lim day boole boppam ci ñi gën a xuus gën a xóot ci naafiq lu tax parce que ñoom dañu def taasur ci alquran aaya ji man lay waxal ndax man mi koy jàng man lay waxal am na kenn ku koy jàng kooku ko boppam lay waxal kon loolu moo tax doomu aadama di war di jàng alquran di def tadabbur quran di xam lu muy tekki loolu bokk na ci li nga xamante ni moo nu mën a dimbali sunu borom ni ñooñu nga xamee seeni tiyaaba dafa néew seeni bàkkaar bari est-ce que mën nga am foo jaar ba rectifié waat déedéet est-ce que di nga mën a dellu siwaat ci àddina wuti tiyaaba déedéet kañ nga yaakaar foofu ku lay jariñ ñi nga yaakaar ñëpp ñoom dañoo soxla ku leen jariñ amul kenn ku la mën a dimbali la la fay jariñ mooy taw yiw allahumma lu dul yërmande yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla defal nu ba tax sunu borom ni fa ulaika alladina xasiru anfusahum ñooñu dañoo perte waaye dañoo perte ba perte seen bopp fii jahannama ci sawar jahannama xaalidun la ñuy sax dàkk talfaxu dana ñaax dana lakk wujuhahum seen kanam yi wala talfaxu naaru safara dafay lakk wujuhakum seeni xar kanam allahu akbar su fekkoonte ni sawara dafay lakk lu mu lakk ci yaramu métti waaye li gën a métti ci lu ñuy lakk ci doomu aadama li gën a métti ci lu ñuy méttital ci doomu aadama mooy xar kanam lii moo tax yonent yàlla saa sallam mu ni même booy joteeg sa mbokkum jurit xaraam na ci yow nga dóor kanam lu tax ndax li gën a métti ci lu ñuy méttital mooy xar kanam l'islam day tere ku ci dóor nit mag ak xale yépp islam day tere ku ci dóor nit lu tax ndax mooy lu gën a métti lu ñuy méttital nit bal sax dafa bokk ci yi gën a tedd wala li gën a tedd ci jëmm ji muy jëf ca la nekk borom bi subhanahu wa taala muy talfaxu dees na ñaas di lakk annaaru sawarati wujuhakum seen xar kanam am na beneen saar borom ba mi wax mi ngi wax ni yow ma bisu keroog tuqallabu dees na wëlbati di duppar ñi wujuhakum seen kanam yi ah fin naari ci sawara yaquluun ñi ngay réccu te naan yaa laytana cay bu ñu xamoon lii ataana allaha dinañ topp yàlla ca lam bëgg wa ataana rasula ñu topp yonent bi ca lam doon santaane sunu borom subhanahu wa taala mu ni ah sarabiluhum min qatiran yére yi ñuy sol ñoom waa sawara borom bi mu ni ñi ngi ko defaree ci qatiran godron ñi ngi ko defaree ci qatiran loo xam ni matière la buy ruy sunu borom mu ni wa taxsha dees na ñaas dees na lakk wujuhum seen kanam yi annaaru ci xar sawara afaman yattaqi bi wajhihi suu al adabi yawma al qiyama ana kan mooy ki nga xam ne mooy jéem a xetti li boppam di fexe ba musal xar kanamam gu tedd gii ci xaru ci ci ci lakkum sawar noonu nga koy toppee ay ayaat yu bari yoo xam ne borom sax day tudd jëmmi kanam lu tax ndax kanam dafa bokk ci gën a métti lu ñuy métti tam borom bi subhanahu wa ta'ala day wax ni yawmal qiyaama ñi nga xam ne dañuy dugg sawara yàlla daf leen di doxloo ci seeni kanam xar kanam wa saxaaba naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la ñuy doxee ci xar kanam yent yàlla bi ni est-ce que du ki leen doxloo ci ay tànk ku am kàttan la ci dox leen ci kanam ahon kay moo tax yent yàlla mu ni moo ne day bu ñuy dox ak seeni xar kanam lu tànk doon joggi di ca gaañu su boobaa xar kanam bi dana ko joggi gaañu ca kon loolu ay firnde la loo xamante ni borom bi daf koy joxe ci alquran di wane nii lay mel talfaxu daa jak daa lakk wujuugakum seen xar kanam yi an naaru safar dana ko lakk sunu borom mu ni law yaalamu alladina kafaru cey ñi nga xam ne ñooy lànkal sunu borom bu ñu xamoon xiina laa yakuffuun jamono ja nga xamante ni kenn du leen tegal an wujuhihim ci seen xar kanam yi annaara pour mu lakk ci safara wala an duhurihim seen digg ginnaaw yi tamit kenn du ko musal ci sawara borom ba mu ni talfaxu wujuhahum annaar al imam al allaama Mouhamadul Amin Shanqiti ba dalee ci adwaul bayaan wa kadalik Cheikh Nasir Saadi mi ngi ciy junj as lëf dafay melal melokaan wi nga xam ni moom la sunu borom subhanahu wa taala di wax ni moom la ñuy lakkee xar kanam ya mu koy melal ci doomu aadama gis nga bu sedd jotee sedd bi metti lool gis nga sedd ni muy def tuñ di xar ay tuñ mu ni doomu aadama ji su fekkente ne yàlla mi ngi koy ñaas di ko alawtiku ci sawara si da ngay gis tuñ yi dafa def ay xar-xar ci loo xam ne sawara si moo ko def beneen misaal bi mooy su fekkente ni dañu rey gàtt toj fees ko futti bopp bi der bi ci nekk nga gis ni gémmiñ gi di feeñee ak bëñ yi mu ni melokaan woowu moom la waa sawara di yor bal sax am na ci asar boo xam ni damaa teewlatul fi ma toog ndax Abdullah ibn Abbas moo ko solo wala kan waaye asar bi day wax ni yàlla subhanahu wa ta'ala dana wax nit demal nga ràmm diw ci biir sawara day ñëw taxaw diw naan ko hey te moom du ko xàmmee lu tax ndax xar kanam gi dafa duppatiku ci sawara ba xàmmeetu ko kon loolu ay xeeti mettital la yoo xam ne borom bi daf ko waajal ñan ñi nga xamante ni ñooy ñi ko doon mooy lii bakkan bi koy dégg te bëgg ci boppam dara la ko war mooy jéem a xoola ma ma sabilu ma ma ma sabil ila najaat ana wan yoon la ñuy jaar pour mën a mucc borom bi subhanahu wa ta'ala mu ni wahum fiha kaalixuun dañuy nekk ñoo xamante ni ñu xottiti ko la ay xar kanam kaalix am na ñaari xeet tafsir benn bi mooy ay ñaas ñaas al kaalix al kalx dañuy ñaas di xotti xar kanam gi am na beneen riwaay bu ñu taxal jëlee ci Abdullah ibn Abbas mu ni kaalixuun ay aabisuun mooy seen xaram yi day day déformé wu dafay ñëkk bay day déformé wu bu boo ko xoolee kii xar kanam bii ma xamoon bokkut ak kii ma gis tey borom baa ngi melal ñi nga xam ne dañ leen di jox ak nan nandal ci sawara doomu aadama bi su jëlee li muy naan mu teg ko ci xar kanamam coolool siy génne ci naanu googu moom mooy teggi der wi nekk ci xar kanamam maanaam der wi nga xam ne moo féete kaw coolool suuf moo koy dindi te loolu moom waxaguñ sax waxi sawara ak lakk-lakk gafa am borom bi subhanahu wa taala mu ni wakum fiha kaalixuun dañuy nekk ñu déformé wu ay kanam waaye dañuy nekk ñu njëkk ay kanam dañuy ne ci aw melokaan woo xam ne melokaan bashia bu sikku la bu ñaaw la bu sibu la wallahi aw melokaan la woo xam ni doomu aadama su su su ko borom bi defal aw natal mu gis ko dana am yërmande ci boppam wallahi day am yërmande ci boppam bal dama ni waxuma doomu aadama ji mu dugg biir sawara waaye taxaw tiim gis ku yàlla yi mbugal wallahi loolu dafa yërëmtalu dafa yërëmtalu taxaw di tiim di gis ki yàlla di mbugal nam koy mbugal dama ni loolu sax jar naa muslu yàlla nit ki buy muslu na muslu yàlla ba muslu waale gis sax nit ñi buggal ndax dama ni loolu dafa yërëmtalu sa sa jëmm ju simple ci sawara su simple si mbugal su simple fi ñu nekk am na xeeti mittal yoo xam ne bu ñu koy def sa moroomu doomu aadama même bu dul jullit sax sa yëg-yëg day yëngu lu tax ndax nature la bu yàlla bindee doomu aadama ndax xeeti mittal yooyu dékku doomu aadama mënu koo dékku xool tey am na xeeti mettit yoo xam ni fii ci kaw suuf doomu aadama mënu koo dékku te méttit wun la wax ci kaw suuf da nga koy double ay yoon yoon yoon mooy nekk ba gën a suufe ci àllaxir su fekkee sa bakkan bi mënta dékku yenn méttit yi même bu dee ki nga koy def dub jullit sax nga am yërmande ci moom parce que noonu la yàlla moo ñee doomu aadama fa kay fakka ndax yaa ngi yërëm sa sa bopp ci bunt bi est-ce que yaa ngi xalaat lii wallahi yaa xi da ngay xool saxaaba yi seen dund allahu akbar taral ajabal ujab da ngay gis ñi yén suaal bi ngay laaj mooy ñii yenn nit lan woon ci ci daw jëm ajana yenn nit lañ woon ci bëgg a mucc ci sawara hatta al aan am na ay nit yoo xam ni bu boo ci bokkee yaa ngi ci bokk boo ci bokkul yaa ngi ci bokk wallahi am na ñoo xam ne dañuy tëdd dañuy jooyal yàlla subhanahu wa taala lu tax ndax bëgg a mucc ci sawara man nettali nañ ma koo xam ni xam naa këram ki ma ko nettali xam naa ko ñoo bokk di yëngu mbokk mi nee na ma li tax mu xameeg waa ji mooy waa ji nee na soxnaam moo ko nettali ni ko li ma seetlu ci dundam li ëpp dafay jekki-jekki rek wéet muy jooy kii may wax du borom xam-xam jàngul diine ji sax taxut koo demee noona waaye yàlla wërsëgal na ko alal waaye dafay jooy ba jabaram daf ko yërëm lan lay jooy biñ ko laajee lu muy jooy mu ni moom malgré que li muy bari alal alal yépp saa bu toogee mu xalaat bis bi muy njëkk a dugg bàmmeel ak bis bi muy dajee yàlla dafay suur li mu am lépp te du borom xam-xam du borom alal mi ngi tukki ak a ñëw su fekkente ni koo xam ni xam-xam bi doon bi doon bi doon bi doon bi doon motiver nit ki pour mu mën a ragal yàlla nekkul ci moom moo mën a man loolu kenn ku ci nekk war nay tiit ci boppam di xalaat loolu guddi gan mooy gën guddi gi may njëkk fanaan bàmmeel bis booy dajeeg sama borom lan lay am ci aw yiw loolu doomu aadama ji di ko xalaat wallahi lu yërëmtalu la ku ci mucc faqad faaza fawzan azima kooku texe na texe gu màgg borom bi subhanahu wa taala mooy talfaxu wujuhuhum naar seen xar kanam yi dañ koy duppati di ko lakk di ko ñaar ci sawarat wa hum fiha kaalixuun dañuy nekk ñu déformé wu ay xar kanam sunu borom mu naan leen wala malaaka yi naan leen alam takun ayaati yàllaa ngi naan ndax sama aay yi nekkul woon loo xam ne tutla aleykum ñu ngi ko doon jàng ci yéen ahon kay fa kuntum biha tukadibun ngeen di ko weddi ndax weddi gi mooy gëmuma ko rek ci ab baat déedéet waaye nit ki dana weddi ci ay wax waaye dana weddi ci ay jëf ndax liñ ni la nangam ji ku ko def dana tàbbi sawar te yaa ngi koy def laa shakka ni kon gëmoo liñ la wax nangam ji ku ko def mooy tax mu dugg aljana te nekkoo ci laa shakka ni gëmoo loolu kon yaa ngi ci bokk ci ñuy weddi kon weddi dafa am ay façon ya gën a rëy ba yi ci gën a ndaw dañoo wuute rek waaye benn la fal maxraju waaxid kon sunu boromu ni alam takun xanaa nekkuloon aayaat yi su may aaya tutla aleykum ñu leen koy jàngal gis nga mi ngi nii est ce que mën nañu am lay ñun est ce que ñun ñi ngi xalaat loolu alam takun aaya tutla aleykum benn ngi nii tey ñuy jàng ñaata yoon ci ay sanawaat yi paase ñuy jàng aaya yi wala aaya yu ni mel la shakka ne yar bi dal na sunu kaw alam takun aaya tutla aleykum xanaa laay daawuñ ko jàng ci yéen xanaa daawuñ ko tekki fa kuntum biha tukadibun ngeen di ko weddi sunu borom mu ni qaalu nga dégg gaay naan rabbana yow sunu borom yërëmtaloo nga xalabat alayna daf noo not daf noo dominer shiqwatuna texee di gini texee di xam nañ ni yow yàlla li ngay wax mooy dëgg wér nañu ñun ñoo def lu jaaduwut sawara boo nu fa dugalee tooñoo ñu ñoo ko yeyoo benn ngant rek lañ bëgg nga jàppal ñu ko mooy xalabat alayna shiqwatuna texee di gin texee di moo dominé ci sunu kaw ba mënuñoo wëlbatiku wa kunna qawman dallin loolu moo nekk sabab ñu nekk ñu sànku est ce que lii lay la wallahi lii du lay ndax doomu aadama ju nekk yàlla dafa monte ci moom appareil buy tax mu baax monte ci moom appareil buy tax mu bon inna hadaynahu sabil lii tax nga bon yàlla defal na la ko lii tax nga baax yàlla defal na la ko ba mu ca noppee suñu borom daf laa yénkeewal ak njub defal la tànn sa bu la neex imma shakiran wa imma kafura laa sakka ni kii góorgóorlu yàlla dana ko dimbali walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana lan moo tax nga ñàkk aljana tey yooyu nga doon topp yépp ba tax nga ñàkk aljana ana mu tey maa agna anka jamoo maa agna anka maaluk ma agna anka sultaan alal ci anam fa nga ko bàyyi séddoo nañu taati kaw yi génn nañ la ko mbooloo mi toppi na ñeneen gis nga de toppi na ñeneen bàyyi la ko kon doomu aadama bu fekkee am na yërmande ci boppam la koy sauvé la koy jariñ la koy xittili ci tolof tolof yu metti yi mooy mu góorgóorlu ci aw yiw nga dégg gaa yi naan rabbana yow sunu borom galabat alayna not nañu shiqwatuna te xeedi ginu te xeedi wa kunna ñu mujj nekk xawman dalin aw nit yu sànku ci àddina rabbana yow suñu borom axrijna minha ay waay ndax doonu génn ci sawara si fa in udna giñal nañ ne la bu ñu génnee fii fa inna zalimun danañ yëg ni ñooy ay tooñkat te tooñkat bu delloo fa mu jóge dana xam ne muy def waaye loolu du am njëriñ génne ñu laa shakka duñu génne yuriduna an yaxrujuna min annaar wa ma hum bi xaarijina minha yàlla muy daal mbébét di bëgg a génn sawara waaye sunu borom mu ni duñu génn kon doomu aadama yi bu ñuy rëccu dañuy rëccoo fi nga xam ne fii la rëccu di jariñ borom bi subhanahu wa taala mu ni saa boo xam ne waa sawara tàbbi nañ biir sawara bokk na ci yi ñuy wax yii galabat alayna shiqwatuna te xëy di ginu te xëy di moonu not moonu sànq moonu ëpp doole wa kunna ba loolu tax ñu nekk qawman dallin aw nit woo xam dañoo sànk wallahi lii ñi ngi gën a ñee tey ci wutum alal te ñu nar a bokk ci dem dem sawara danañ ko wax ñi ngi gën a ñee tey ci ñi ngi ñi ñi gën a xam ci mooy yàlla te ñu nar a bokk ci sawara danañ ko wax ñooñu fii lañ leen di ñee waaye kenn du leen ñeexee fële aljan nag alaxira kenn rek lañ fay ñee mooy ki nga xamante ni taqulat mawasin sunu borom subhanahu wa taala mu ni da ngay dégg ña ngay wax ay baat bokk na ci mooy baat yi wa kunna qawman dallin rabbana yow sunu borom axrijna minha dañuy sàkk génn ñu ci sawara si fa in udna nun day bu nu génnee fa inna zalibuna yëg nañ ni ñooy tooñkat yi te tooñkat bu nekk buñ ko baalee war naa xam boppam lan la leen sunu borom bi tontu ixsa'u fiha wallahi baatab ixsa maa ngi jéggalu ci kàddu wolof bi baatab ixsa xool naa kaw ba suuf xaw ma ban baat ci wolof laa ko xamal bu dul sa xaj ixsa xaj lañ koy wax xaj ixsa xaj lañ koy wax wala seytaan maanaam baat bi leen sunu borom wax moo sibu ixsa'u fiha tekkiwul nuur leen fa de ixsa'u fiha tekkiwul leen mooy sax leen ixsa mooy ca xaj moo tax arab yi bu ñu nee ixsa yaa kalb mooy ca xaj ixsa yaa aduwallah sunu borom mu ni ixsa'u fiha sax leen ca xaj ci biir sawara wala tukallimuun bu kenn waxati man wallahi alladi la ilaha illa hu bii kat moo gën a métti ca waa sawara lakk giñ leen di lakk ixsa'u fiha moo gën a métti ci waa sawara ci lakk giñ leen di lakk lan mooy tegtal bi mooy sawara li muy métti métti métti ñi ñuy lakk borom bi bàyyi gim leen bàyyi woon ñuy wax ay kàddu sax am na tuuti lu muy def jeexintal ci ñoom ndax ki ñuy dóor wala ki ñuy fitnaan waaye bàyyi nañ ko làmmiñam mu jooy bàyyi nañ ko làmmiñam mu yuuxu bàyyi nañ ko làmmiñam mu wax bàyyi nañ ko làmmiñam mu yërëmtalu amaan na mi ngi am yaakaar ni xëy na léegi ñu baal ma gis nga kii ñu may làmmiñam pour muy wax amaan na mu yërëmtalu ca loola bal ci tabia bi yàlla bindee nit boo xoolee bu fekkee nit ki dafa mer ba jéggi dayoo ba mënta maîtriser boppam buñ ko tooñee amut fu mu fajee fu dul saaga mu saaga lim def baaxut waaye lislaam du ko wax dara ci yenneti buntu nag lu tax ndax doomu aadama ci boppam dafay toll koo xam ne lii fudd ci xolam faw làmmiñam génne ko laa yuhibbu llahu aljahra bi su'i min alqawli illa man zulim dañ kaa tooñ amul benn pexe bu dul boobu kese gis nga loolu lu mu bon bon bon am na lu muy génne ci xolam waa sawar wax gi ñu doon wax di ñaan ak a yërëmtalu ak a yuuxu loolu dafa am jeexintal bu muy def ndax léeg-léeg ñu seen kenn yàlla sempi ko dugal aljanna léeg-léeg ñu seen kenn ñëw rëmm kenn loolu am gi muy am ñoom ñu koy gis ak yuuxu gi ñuy yuuxu ak yërëmtalu gi ñuy yërëmtalu sabab lay doon ci ñuy yaakaar naan peut-être que lee ñu génn ñu waaye bu leen sunu borom subhanahu wa taala ne ixsa'u fiha sax leen ci biir sawara kenn dootul génneeti benn kàddu moo tax ma ne la loolu moo gën a metti ca ñoom lakk gi ñu leen di lakk moo tax kenn ci borom xam-xam yi dafay wax ni ibn abi xaatim muy nettali mu ni jëlee na ci abdullah ibn amr mu ni inna ahla jahannam yad'uuna malikan fala yujibuhum arbaina aama mu ni waa sawar dinañ woo maalik wa naadaw sunu borom ni ñi ngay woote naan yaa maaliku e yow maalik li yaqda alayna rabbuk yàlla nanu far jekkali ñu dee benn yoon nanu far jekkali ñu dee benn yoon ndax fi ne li ñuy dégg li ñuy dal ci mbugal mënatuñ koo dégg qaala jooju ci topp mu ni fa yamkusu arbaina sanatan thumma yujibuhum muy day toog ñeent fukki at doog leen di tontu qaala doog a ñëw mu ni innakum maakithun yéen fi ngeen di sax du ngeen génn noonu su sunu borom subhanahu wa taala ne ixsa'u fiha wala tukallimuun alxaafid ibnu kathir mu ni fa yaskutu anhum qadra dunia malaaka mi dana toog lu tolloog yàggaayu àddina doog leen di tontu sunu borom tontu leen ni ixsa'u fiha sax leen ci biir sawara si mu ni fa wallahi ma nabata alqawmu baadaha bi kalimatin waxida fama huwa illa aldafiru walshahiqu fi naari jahannam fatusbihu aswaatuhum bi aswaati alxamir awaluha dafir wa axiruha shahiq borom bi subhanahu wa taala bu leen waxee iqsa'u fiha nuur leen ci biir sawara si nee na su boobaa kàddu yépp nan celaw kenn dootul waxati nee na waa sawara amu ci kenn kuy yëkkate ci benn baax doo dégg lu dul ay xéxét ak ay nokki ay xéxét ak ay nokki mu koy misaalee mbaam suy tàmbalee yuuxu ni kàddu giy fooree ak buy jeexintal ni muy wàññee baatam mu ni melokaan waa sawara noonu lay mel doo dégg lu dul rek ay onk ak yuuxu waaye benn baat dootoo ko déggati moo tax ma ne la lii mooy li gën a métti ci ñoom te lu ko jiitu toppal alquran nga di ko nafar ay yoon yu bari borom santal day wax da ngay dégg ñu rabbana yow sunu borom amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn fa atarafna bi dunubina fa hal ila xurujin min sabil yow sunu borom rey nga nu ñaari yoon dekkal nu ñaari yoon fa atarafna bi dunubina reconnaître nañ tey sunuy bàkkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax duñu am moyen wala occasion buñ mën a jaar rek ba génn ngir ñu mën a xittali ko sunu borom mu ni déedéet dalikum bi annahu ida duaya allahu waxdahu kafartum li amoon mooy buñ leen wooyee ci yàllay kese subhanal malik al aala da ngay dégg nit ñuy wax yàllay kese dafa wow koŋ moo tax neexul a jàpp ida duaya allahu waxdahu kafartum buñ leen wooyee ci yàllay kese ngeen weddi ndax nee ngeen yàllay kese daa wow neexul a jàpp wa in yusrak bihi buñ ca tuddee kenn boole ko ca rek loola nee ngay ne moo war a tax moo neex a jàpp tuminoo ngeen gëm kon nag tey lii ngeen yeyoo sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci beneen saar saa bu ñu yegsee ci sawar da ngay dégg ñu ne rabbana abtarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun wala ghayra alladhi kunna na'mal ci beneen aaya yàlla day tey xippi nañ ba xool xàmmee nañ yëg nañ ni liñ nekkoon du noonu wa sami'na dégg nañ dëgg xam nañ lañ doon dégg du mooy dëgg lenn rek lañ bëgg mooy farji'na gis nga toujours rek farji'un irji'na irji'un delloo ma ci àddina dinañ jëfaat ay jëf yi wuuteeg yi doon jëf lu leen sunu borom di tontu awalam nu ammirkum fiha ma yatadakkaru man tadakkar xanaa du yéen mayoon naa leen ci aw fan loo xam ni ku war a mën a suppiku mën cee suppiku wa jaakumu nadir tey waaraatekat bi xuppekat bi dikkaloon na leen fa duuqu kon mos leen ci sawara si wa ma lidalimina min ansaar képp koo xam ne tooñkat nga ba dugg sawara ku lay dimbali doo ko am foofu bokk na ci yiñ doon wax ay baat yu bari waaye bii mooy bañ ciy mujjee wax moo tax imaam ju mag Muhammad ibn Kaab al-Quradi yi daf ko noseel tàmbali ca kàddu yi ñu njëkk a wax borom bi ba mat juróom te damay wax ku topp alquran sax da ngay xam ne ëpp na juróom walaw tara id wuqifu ala annaar fa qaalu ya laytana nuradd wala nukaddiba bi ayati rabbina yàlla mu ni cey boo fekkee woon fi ñu leen taxawalee ci kaws safara nga dégg ñu naan ya laytana nuradd aka neexoon ñu delloowaat nu ci àddina wala nukaddiba bi ayati rabbina te duñu weddi suñu aayee borom wa nakuna min almuminin ñu bokk ci ñu gëm yàlla suñu borom mu ni bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qable ah kon li ngeen di nëbb tey feeñ na waaye walaw ruddu bu ñu leen delloowaatoon ci àddina da ngaa foog da ngay defar waaye doo defaroo la aadu lima nuhu anhu wa innahum la kaadibuun di nga dellu ci la nga nekkoon da ngay kàcc yàlla subhanahu wa taala amaan na sax bu xamoon ci yow bu xamoon amaan na sax xam na ci yow ni bu la delloo woon sax mën ngaa baax waaye même bu loolu amoon sax damay wax ni dellu si du mën a nekk rawatina ba nga xam sunu borom xam na ni boo dellu soote doo baax moo tax sunu borom subhanahu wa taala bu gaa yi ne galabat alayna shiqwatuna ndax mooy seen dernier cadre mooy seen dernier sens ñoom waa sawar seen wax kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum xasanatuha alam ya'tikum nadir wallahi mbokk yi malaaka yi ci boppam bu waa aljana duggee biir aljanna dañuy am ñeewant ak kontante ak xam ni ñii day fin leen di dugal sax xamuñ fu mu doon tëb tëm yéen de teey ngeen baax ngeen yéen de gañe ngeen wallaay di leen ndokkeel ci xeeti ndokkeel yoo xam ni c'est-à-dire que li muy tekki mooy yéen nun ni nu xamee àjjana yéen xamewu leen ko noonu wa kadalika ca safaan ba malaaka yi nekk sawara dañuy yërëmtalu ci ñiñ fay dugal yërëmtalu goo xam ni dañuy yëg ni ñii ñiñ fay dugal fi ñu leen dugal sa xamuñu ko alam yatikum nazir yéen nu ngeen doon sàggan ba dugg sawara yéen xanaa ab waaratkat dikkalu leen woon yéen xanaa alquran xamu leen koon xanaa da ngeen ko jàng xanaa du ngeen ko dégg qaalu nga dégg ñu ni balaa ahan kay kay qad jaana dikkaloon nañu nadirun ab fàttalikat ab waarekat fa kaddab naa ñoo weddi woon fa kaddab naa ñoo lankoon gis nga ñoo lankoon wa qul naa ñoo ne maa nazal allahu min shay yàlla wàcciw dara in antum yéen day illa fi dalalin da ngeen a sànku allahu akbar mbokk yi xoolal li ñuy dund li ñuy dund tey nun dafa mel ni alquran boo koy jàng démb ci ngoon la wàcc li ngay dund tey ma di ko dund kañu jiitu woon ci téeméeri at doon ko dund alquran dafay méngoog jamono bu nekk lii moo lay wan ne tanzilun min rabbil alamin mi ngi bàyyi ko ci borom jaam ni muy yàlla subhanahu wa taala sunu borom mu ni suñ ne texee di kat moo gàllu ci suñuy loos wa kun naa ñu nekk qawman dallin aw nit woo xam dañoo sànk yal na yàlla musal nu ci sànk wa kun naa qawman dallin dañoo sànk woon rabbana yow sunu borom axrijna minha génn ñu ci sawara si fa in udna bu nu delloo ci àddina fa inna zalimun yëg nañu ñooy tooñkat yi danañ defaru qaala sunu borom ni ixsa'u fiha sax leen ca xaj nuur leen ca biir sawara wala tukallimuun bu kenn waxati ak man al imam muhammad ibn kaab al quradi mu ni intaha wax jeex na benn kàddu dootul bàyyi kooti ci waa sawara jëm ci borom bi subhanahu wa taala borom bi bàyyi leen ci biir sawara innahu li am ba des mooy kaana dafa nekkoon fariqun ab kuréel ab mbooloo min ibaad yi ci samay jaam ci àddina yaquluun dañ daan wax naan rabbana yow sunu borom aman naa ñun day gëm nan fekkeewun de gisun de waaye dégg nan gëm faghfir lana noo ngi sàkku njéggal ndax boo nu jéggalul alkaane dikkal na warxam naa yàlla nag nu yërëm ndax boo nu yërëmoon ñu sànk wa anta xayru rahimin kuy yërëme yaa ko féete kaw yow yàlla subhanahu wa taala yërmande ji yaay am ci doom ji mu jur nga xam ni misaal lañ koy jox ci yërmande yi kaw àddina yërmande jooju niroowut jegewut xanjalul sax bay niroog ba borom bi subhanahu wa taala te boobu ñun mooy bi gën a féete kaw bi ñu joxe misaal wa anta xayru rahimin yaa gën ci ñuy yërëme gis nga ci àddina da doon daj ay coono day metti dañ lay xas di la ŋàññ di la bundu xotaal waaye dafa am ay accord yu ñu siñante woon ak yow ci tàmbali saar bi nga ne mën naa ñun la demal qad aflaha al muminuun texe gaa ngi ñëw de waaye ñii ñoo ko moom nag alladina hum fi salatihim xaashiuun koo xam ne buy julli mi ngi ànd ak toroxlu di teewalu yàlla subhanahu wa taala di kontu julli gi ci julleem gi nar a mujj walladina hum ani lagwi muariduun koo xam ne lépp luy caaxaan du ko déglu wallahi loolu dafa yegg ba gis nga sunu xeeti rajo yi léegi da ngay dégg ay gaa yoo xam ne caaxaan rek ñoo tax ñu teg leen ci rajo yooyu wala télé yooyu da ngay gis koo xam ne nee na ma mi ngi góorgóorlu ci diine te kooku da ko boole ci programme di ko déglu wallahi dëggoo ci li ngay wax déedéet allahu ëmb na loolu lépp ani lahu yi mooridu da koy du mooyu bal du mooyu googu du caageen dama koy wan gannaaw kese du caageen du ma ko déglu kese bal su ma déggee ñu di ko dama yëg métti ci sama xol saa boo demee ba yegg foofu nag duq sa taamal imaani insha allah waaye saa boo demee ba doo ko suivre doo ko seetaan waaye soo déggee ñu di ko wax du la méttit lu yëgal ni taamal imaan tàbbeegul ci sa xol déedéet kon méttit yooyu nga di ko daj walladina hum li zakati faailun li nga am lu mu néew néew ne nga gëm ni dafa tege ci sa loxo rek sunu borom naan la anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fihi gis nga alal borom waxul dépensé ci sa alal ji lu tax ndax alal ji moomoo ko jaalaka allahu mustaxlifan fihi daam ku dee nga jot ci bii yi génn nga jot ci bi mu génnee même bu dekkee sa loxo la njëkk a tege day jàll dem ci loxol keneen kon moomoo place bi nga toog dafa am ku fa jóge moo tax nga mën faa toog mustaxlafiina fii nit a jum nga ñëw kon da ngaa war a xalaat ni bis dina dem dina ñëw nga dem kooku keneen ñëw sunu borom subhanahu wa taala mu ni walladina li zakati faailun walladina li furujihim xaafidun koo xam ni ku sàmm la wallahi ay caaxaan yoo xam ne dafa jëm ci njaaloo gi demee noonu waxuma ne di ko def waaye jombale na ay bëtam di ko xool jombale na ay bët noppam di ko déglu waaye jombale na xolam di bànneexu ca wax yi ñuy wax mu di ko dégg suñu borom lima lima lima ba ba mu mujjantal xoolal rapp gi am ci alquran bi mu tàmbalee ci julli la tàmbalee wala alladina hum fi salatihim xaashiun lu mu wax walladina hum ala salawatihim yuxaafidun ci beneen aaya julli la tàmbalee jeexalewaat julli sunu borom mu ni ulaika ñooñu humul waarisuun ñooy ñiy donn kër gi gan aljanna yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaalidun ñooñu humul muflixuun loola faw mu am ay sacrifice faw mu am ay coono faw mu am ay métit waaye kenn forcé wu la yaa tànnal sa bopp sunu borom mu ni yaquluuna ñu ngay wax naan aman naa gëm nañ yàlla faghfir lana yàlla nag ñu jéggal yow sunu borom warxam naa yàlla nag ñu yërëm wa anta xayru rahimin yow day yaa gën ci ñi yërëmee sunu borom ni yéen waa sawara nag fattaxadtumuhum ngeen jàppee gaa yi sixriyan reetaanukaay di leen mokke di leen saboote maanaam ñoom ci seen jëmmi bopp bokk na ci jafe-jafe yi ñu doon dund mooy saboote gi ngeen leen doon saboote ñaata ci ay nit tey wallahi ñooy taxaw publiquement di saboote yàlla di saboote yonent bi di saboote alquran waxuma la sax ñuy saboote jullit ñi bal dama ni la saboote ku gëm yàlla mook saboote alquran ak saboote yonent bi saa sallam dafay jural nit ki ak kéefër dellul ca gaa yi nga xam ne ñooy naafiq yi doon wax saxaaba yi naan leen seen biir yu rëy yi di leen sabootee loola te amaana sax dañ doon kaf xool lan la yàlla wax qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un est ce que ñoom dañoo xas yàlla déedéet est ce que dañoo xas yonent bi déedéet waaye ab saxaaba la ñu xas xoolal ki xas saxaaba yàlla ñëw waxul yi ah ah saxaaba yi ngeen di xas déedéet dañu qul abillah ndax yàlla leen dese wa rasulihi ndax yonent bee leen dese ndax ñii ñaar ngeen di mokke qad kafartum ba'da imanikum génn ngeen ci lislaam mbokk yi ñaata jullit ñooy dox di jullee ko war fekk génn nañ ci lislaam te yëguñu ko lu tax ndax ñi ngi mokke yàlla ak yonenteem ñi ngi mokke ak a saboote ñi nga xam ñoo ñi gëm yàlla waaye dama ni loolu su dalee ab jullit wala dafa war a yëg bànneex ci xolam ndax lan da koy wan ni mi ngi ci yoon bi kii sikk sàkk ndax man tege naa ci yoon bi mën a dal xel tegewuma ci ma mën a góorgóorlu dama ni yii bu la gaaree da ngay sant yàlla ndax lii la la sa borom wax subhanahu wa taala rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta xayru rahimin waa sawara sunu borom ni leen fattaxadtumum ngeen jàppee leen sixriyan reetaanukaay di leen saboote sunu borom ak su jeexital mutaffifun inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadxakun ñi nga xam dañoo wet dañ doon saboote ka reetaan ñi gëm yàlla wa ida marru bihim yataxaamazuun ña ngay wokkante ak a kobasante ak di leen sëllëx suuf wa ida inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin ak yee ci topp yee ci topp yépp waaye sunu borom mu ni fal yawma tey fal yow ma tey alladina amanu ñi gëm yadaxakuuna ñooy fayu di reetaan min al kuffaar ci ñu weddi woon ñoom dañ doon toog ki suuf jant di leen lakk ak jafe-jafe yi ñu doon àndal doog leen di ree waaye yéen ala al araiki yanduruun da ngeen di toog ci kaw laltu yoo xam ni maanaam toogukaay bi ci boppam mën naa remplacer lépp nit ki ci biir aljanna wallahi mbokk yi al araik mën naa remplacer toogukaay remplacer tëddukaay nekk sa warukaay nekk sa naanukaay nekk sa lépp ba sunu borom na leen hal thuwiba al kuffar ma kaanu yafaaluun sunu borom bu ni ah inni man day jazaytuhum al yawma ñooña fay naa leen tey bima sabaru ci liñ doon muñ undur ku bëgg fayeeku da ngay muñ la shakka mbir yi dafa am ay aqabaat mbir mi dafa am ay tabaqaat tabaqan an tabaq faw nga joggi ay nakabaat ay aqabaat ay masaib ay coono ay mettit ay jafeñ-jafeñ muy metti ngay muñ lu tax aljanna dafa bokk ci diplôme bi gën a rëy bi nit di am pour dugg fa mooy muñ salaamun aleykum leen waa aljanna yi wax bi ma sabartum yéen day tey ngeen am jàmm bu yëg ne am ngeen jàmm lu ñu ko may mu ni bi ma sabartum ndax da ngeen doon muñ fa ni'ma uqbadda yéen fi ngeen dal tey moo neex a dal borom bi subhanahu wa taala mu ni inni man yàlla jazaytukum al yawma dama leen a fayee bi ma sabaru ndax dañ doon muñ bàyyi ba nit ñi jug tëdd ñu jug jàpp ci sedd bi di julli ay rakk di jooyal yàlla subhanahu wa taala dañ daan bàyyi ba guddi ngir bëgg aljanna ngir bëgg lu sell taamu ko ci lëndëm gi di génne lañ am di ko joxe ci waxtu woowu dañ daan taamu ay bis yu tàng di ko woor tatawaan kenn forcé wu la ndax du koor nga di ko woor ngir bëgg a mucc ci sawara dañ daan toog ay nit di coow ak a wax ñoom ña nga beru seen nduq di jëfe yontu yàlla bi wax la yazal lisaanuka ratban an dikrillah fexeel ba sa làmmiñ ba mu dañ di tooy xepp ci di tudd yàlla subhanahu wa taala amoon nañ programme bu nosew gëmoon ni wutum tiyaaba ba ca gën a gaaw mooy jàng alquran benn xaraf bu ne fukki tiyaaba mu wutal programme boppam bis bu nekk am na waqf bu muy jàng ci alquran lu tax ndax dafa gëm ni projet bi gën a gaaw pour gagner aljanna mooy jàng alquran ndax moom amul bu mel ni moom ci gaaw fayeeku sunu borom mu ni inni man yàlla jazaytukum al yawma fayee naa leen tey bi ma sabaru ci liñ doon muñee annahum ñoom day humul faiduna ñooy texe tey yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu si ñooñu qaal sunu borom mu ni nga dégg gaa yi di wax naan wala ñu deen laaj naan leen kam labistum fi l ardi adada sinin aw kam adada sinina laba labistum fi l ard sunu borom mu ni ñu ngi leen di laaj naan leen kam adada sinin ñaata ci ay at labistum fi l ard ngeen am ci kaw suuf waa sawar borom bi maa ngi leen di lakk mbugal maa ngay métti ci ñoom lool yegg ci dayo boo xam ni mallahu bihi alim waaye bokk na ci mokke giñ leen di mokke mooy kam labistum fil ard adada sinin yéen sax ñaataat ngeen def ci kaw suuf yéen xanaa da ngeen fee dund junni at moo tax ngeen liggéey fu leen dugal sawara déedéet borom bi da leen a bëgg a wan ne dund gu gàtt gi ak ni mu gàttee waroon ngeen cee mën a góorgóorloo kan labistum fil ard ñaata ci ay fan ngeen am ci suuf adada sinin qaalu nga dégg ñu naan labis naa ñun de dañ faa am yawman benn bis aw baada yawmin wala be genn wàllu bis allahu akbar xool àddina ni mu yàggee jëlal sa bopp yow ñaata ñaata fan nga ci dund foofu tamit maa ngi waxaat li ma waxoon da ngay dem ci alquran nga gis borom bi subhanahu wa taala di laaj nit ñi ñaata ngeen am ci kaw suuf waaye wax ya day wuute wuute yooyu nag nekkul ay tanaqudat ci alquran déedéet waaye benn bu nekk ak palaasam la loolu tamit lu xamata xam la ndax borom bi subhanahu wa taala mu ni ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha dafa mel ni bis bi ñu leen dekkalee ñu dajeek yàlla ah kenn daa judd yoor yoor rek def li ngay def bi tàkkusaan di jot fekk na pare nga nga dee xool ni mu gàttee wa yawma taqumu saa yuqsimu almujrimuuna ma labisu gayra saa alaxira allahu akbar ñoom duñ yem ci ni benn fan lañ fa am waaye dañuy giñ yuqsimu almujrimuun dañuy giñ ni ma labisu gayra saa une heure temps lañ am ci kaw suuf rek dee moo tax daa gàtt am na beneen sunu borom subhanahu wa taala di wax ni ah in yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa ashra nga dégg kii naan fukki fan lan fa am kii naan ñaar fukki fan lan fa am kii naan moo tax borom xam-xam dañuy wax boo koy jamoo mooy kenn ku ci nekk sa selon sa yëg-yëg rek ngay waxee maanaam mbooloo mi ñuy laaj da ngay dégg ku ne benn fan lañ am kii ni genn wàllu fan kii ni yor-yor la woon tàkkusaan mu jeex ñi ca gën a gàtt ne lam yalbasu ah yuqsimul mujrimuun maa labisu gayra saa ñoom ñu ne benn une heure temps lan fi am borom bi subhanahu wa taala mu ni moo tax al imam abi ibn abi hatim dafay nettali jëlee ci safwan ibn al ay ci ci safwan ñu jëlee ci ayfa mu jëlee ci abdullah al kulaayi mu ni toxal nañ dégg ci yonent yàlla bi saa sallam benn bis muy xutba mu ni yàlla taabu tàbbalee waa aljanna aljanna tàbbal waa sawara sawara dafay wax yaa ahlal janna kam labistum fi l ard adada sinin yéen waa ajjana ñaata fan ngeen am ci kaw suuf qaalu yawman aw baada yawm ñu ne benn fan day lañ fa am lañ yaakaar wala genn wàllu fan sunu borom ne la ni'ma mattajartum fi yawmin aw baada yawm allahu akbar yéen day kon seen commerce bi ngeen doon def te ci benn fan kese ngeen amee ci àjjana kon day commerce ba réussir na mu ni benn fan ngeen réussir ci commerce ba am ci sama ngërmande ahlaltum rahmati wa ridwani wa jannati umkusu fiha xaalidina muxalladin kon de sax leen ci biir sawara dàkk dootu leen génnanti mu ni yaa ahla annaar kam labistum fi l ard adada sinin ee yéen waa sawara ñaata fan ngeen am ci kaw suuf qaalu labisna aw yawman aw baada yawm ñu ni benn fan wala genn wàllu fan suñu borom mu ni bisa mastajartum fi yawmin aw baada yawm kon de yéen bon ngeen lu ngeen gañee ci commerce bi ngeen doon commerce ci benn fan wala genn wàllu fan li muy gàtt gàtt gàtt gàtt fexe ngeen ba am ci sama sawara li muy gàtt gàtt gàtt fexe ngeen ba ma mere leen ci umkusu fiha xaalidina muxalladin sax leen dàkk ci biir sawara dootu leen génnati moo tax sunu borom mu ni bu ñu leen laajee dañuy wax naan benn fan wala genn wàllu fan xool mbokk yi ni mu gàttee dund gi bu ñu ci génnee fan yi nga nekk gone génn ci heure yi ngay nelaw génn ci bis yi nga feebar génn ci bis yi ngay am ay métit ndax yi ma génn yépp benn neexu ca wallahi la cay des tuuti lay doon ndax dundu gu gàtt gi alfaaniya di nga ko gën a leeg albaaqiya xoolal baat yu yërëmte luñu su bal tu'siruna alxayaat addunia ndax da ngeen di gënale dundu àddina gi wal axiratu xayru wa abaqa alaxira gën tiit dafay des àddina bi alfaaniya fee albaaqiya fii da nga am ay métit fee doo am ay métit loo xalaat ci lu bakkan di bànneexoo ma nga lay xaar aljanna waaye wallahi loo yaakaar ci lu mën a xor ñoññal bakkan loola ma nga ci sawar moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni gars yi bi ñu tontoo ñun labis na aw yawman aw baada yow ñi ngi fi sax benn fan wala genn wàllu fan waaye fas alil addin laajal wàññikat yi allahu akbar imam ju mag ci ay imatul mufassirin yi te waxam bii wallahi daf maa yéem ndax gisuma keneen ku ko wax ci mufassirun yi mooy metti bi dafa yegg ci ñoom foo xam ne mënatuñoo maîtriser seen bopp ba xam lu ñuy wax ñu ni fas alil aadin laajal ñi mën a compte ndax ñun taluñoo compte wallahi wax na dëgg waxam jooju wax ju ñor la wax ju ma yéem la a ima yi ngay gis seen tafasir mën nga liir lu mat ñaar fukki tafsir ak nangam waaye waxam ji wax la ju ñor fas alil aadin laajal compte kat yi romb jàll mu ni déedéet fas alil aadin laajal compte kat yi ndax li ñu yor ci aw mettit mënatuñ koo dékku fi mu nekk nii tàqalikoo nag suñuy suñuy xel kon fas alil aadin laajal ñi mën a wàññi ñoom danañ xam ñaata fan la waaye ñun xamatuñ ko suñu borom ni in labistum illa qalila su fekkonte ne day li ngeen fi am lu tuuti la law annakum kuntum taalamun aka neexoon ngeen xam ko bi ngeen xamee ne li ngeen fi am ay fan yu gàtt la aka neexoon ngeen xam ne lu tuuti ngeen fi am dund gu gàtt la est ce que bis yi nga fi am yu gàtt yi jar na nga sànq sa bopp ci biir sawara li lay xaar li ngay dabu ci ay bànneex subhanallah xoolal tey li nga gën a bëgg boo ci jotee mu sàppi la lan nga xalaat ci àddina loo jàpp ni lii moo dox sa digganteeg sa borom loola dama ne la su fekkente ni mucc nga ca wala jot nga ca rek da ngay daal di commencé sàppeeku ca loola borom bi subhanahu wa taala mu ni fasalil aadin laajal ñi nga xam ne ñooy compte sunu borom mu ni in labistum illa qalil law annakum kuntum taalamun su ngeen amoon su fekkoonte ne la ngeen fa sax lu ndaw la day wax dëgg yàlla yàlla yi tekkoon ngeen xamoon ni kat musiba moo nekk ci topp àddina boobu ba sànkute la sunu borom mu ni afa xasibatum ndax da ngeen yaakaar ni annama xalaqnaakum abatan caaxaana tax mu bind leen mu ndax da ngeen foog ni fa moo tax ma indi leen ci àddina déedéet wa annakum ilayna la turjaun mu ndax da ngeen yaakaar ni alaxira du ngeen dikk fi ñun sunu borom mu ni déedéet fa taala kawe na te màgg allahu buur yàlla almaliku mooy buur alxaq di buurub dëgg bi te ku yeyoo buur nekk bi mu nekk buur laa ilaha illa hu amul lenn amul kenn ak lenn lu nuy jaamu ci dëgg jaamu gi di indi njariñ ñàkk jaamu gi di indi ay loro ki réccu ëllëg alaxira kudul buñ jaamoo yàlla subhanahu wa taala rabbul arshil karim yàlla moomu de mooy borom aras bu tedd ci mooy borom aras bu màgg bi mooy borom aras bu tedd bi wa man yad'u sunu borom ni képp koo xam ni mi ngi woo aka jaamu aka yaakaar aka xitiliku aka dimminiku aka sukkandiku aka wéeru ci keneen ma allahi ak yàlla ilahan axar keneen ku dut yàlla la burhana lahu bihi kooku li muy def mi ngi sànq boppam te yëgu ko la burhana lahu bihi loolu du ca am lay bu dajeeg boromam fa innama xisaabuhu ab atteem day inda rabbihi ma ngi koy xaar fa yàlla ki yaakaar aka dimmaniku aka xitiliku aka jël sañ-sañi yàlla di ko jox nit kooku na yëg ni li muy def musiba la danger na ci teel a tourné la burhana lahu bi kooku bu dajeeg yàlla du am lum lay fa innama xisaabuhu atte ga ko yàllay atte inda rabbihi ma ngi koy xaar foofa innahu sa borom yàlla day laa yuflixu lkaafiruun ku weddi woon kooku du texe foofu fa moom sunu borom subhanahu wa taala mu jeexalee saar bi waqul waxal comme la jullit ñi doon wax yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta xayru rahimin soññu leen ci subhanallah alquran dafa nosewu mi ngi la koy fàttaliwaat saar baa ngi jeex waaye mi ngi la koy fàttali parce que mooy tax nga mucc sawara saar baa ngi jeex mi ngi la koy fàttali parce que mooy tax nga dem aljanna saar baa ngi jeex mi ngi la koy fàttali parce que xam na ni moo la taxoon a texee waqul fàttali leen ni leen waxal ni raw rabbi yow sama borom igfir lii maa ngi sàkk nga jéggal ma igfir jéggal jéggalal warxam nga yërëm wa anta yow day xayru rahimin muy ñaaral yoon ci saar bi yaa gën ci ñi yërëme noo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula yal na yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañu am aljanna mu ci sawara yal na yàlla tàggatal na suñuy xol ba mu nekk ay lolli ci taataan yiw yal na yàlla musal nu ci fitna ma dahara min haw ma batan wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
yàlla subhanahu wa taala dafa ñu kàttan boo xam ne danañ gaaw a defee li ñu jot a gaaw ci ay jajj ak li ñu jot a gaaw ci ko borom subhanahu wa taala ay dig yu dig yërmande dañu daal di taxaw foofu rek ndax waxtu jot na di fàttali mbokk yi incha allah mais tey si guddi dañuy fas yéene woon programme bi buñ tuddee jéeg nopp ci déedéet baa bi am incha allah ci thème bu am solo muy ak suufriya kon daal di ciy baaxee incha allah tey buñ tuddee jéeg nopp di jeexalee suñu wax ci ustaas tëjee tafsir bi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla yërëm ba noppi déggal suñu rek ba bu ëllëgee ñu boole ñu ci ñu dugg aljanna amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Yeah.